man foofu laa bëgg a être transition lay doon par rapport ak euh, affaire bi nga xam ne moom daanaka ces affaires moo tax ba nga xaw a reculer wu euh, le besoin tey jii bi ngeen am yéen les les hommes d'affaires ceux qui les chefs d'entreprise par rapport ak euh, la situation du pays le climat Euh, sociopolitique bi nga xam ne moom ci la ñu nekk on s'achemine vers des élections euh, coow li bari na même bu fekkee sénégalais xamee nañ ko ci dal waxtaan ak yooyu mais voilà ndax am ngeen inquiétude aussi par rapport wala besoin pour que euh, le climat demeure dans dans le calme comme ça ku nekk mën a def ñu normal. non euh, awma ci awma ci inquiétude. Mhm. parce que vous savez ma euh, ma moi je suis au cœur des élections depuis 1994 je fais partie des têtes de je suis tête de file des imprimeurs pour les élections donc mmh. je, je suis au cœur des élections depuis 1994 et les élections ont toujours créé un engouement coow li day bëri bu jeexee tout le monde va s'asseoir sur la même table ànd dem lekk seen ceebu jën Sénégal moo mel noonu Sénégal moo bind noonu et c'est ça notre satisfaction exactement mais aussi le Sénégal économiquement quoi qu'on puisse dire euh, je pense que euh, c'est l'occasion peut pour moi pour euh, saluer le les actions du président de la République Macky Sall je le politique politique de. politique gu politique gu tax. yaa ngi xalaat bu baax xam nga déglu bu ma leen bu ma leen joxe sama raisonnement rek di ngeen comprendre. politique gu man Macky musuma may ñaar dërëm musuma may un mètre carré de terrain. je juge par les actions qu'il fait sur le plan économique bu nga xamee ne moi je m'en sors ak suma naataango yi du patronat s'en sortent et que et que je voyage beaucoup beaucoup et je vais partout en Afrique et moi il m'est arrivé souvent des des officiels africains des officiels des ministres et autres tout ça mais di di tagg un peu ce que le président sénégalais est en train de faire au Sénégal même am na ñoo xam ne sax dañu kaf di ree da yéen doon la ñu seen président bi pendant quelque temps lu tax luy ndey loolu xanaa ñun soxlawuñu ko donc c'est pour vous dire que quoi qu'on puisse dire qu'on le veuille ou non hmm. Macky Sall a des choses ici oh non, il a moi en tant que sportif déjà je prends même sur le plan sportif déjà le fait de voir rek parce que et puis en plus xam nga charge bi ma am mon usine qui est à Diamniadio su ma taxawee si buntu usine bi bu ma taxawee damay jàkkaarloo ak arena donc déjà rek kooku déjà dafa mel ni genre bu ma taxee foofu damay jàkkaarloo ak benn benn benn édifice bu ndaw bu nga xam ne toujours le destin lié au basket c'est ma <laughs> vie je te le jure bu leen neexee je t'amène là-bas bu ma taxee su ma buntu usine mais damay jàkkaarloo ak arena te ku damay wax ni ñëpp may dégg ku fa ñëw eh bien tu verras arena en face de toi donc je ne parle pas de l'arena je parle de du stade je parle de de de l'arène de de de de de lutte et puis et puis surtout les conditions yi nga xamee ne parce que xam naa parce que j'ai été président de la fédération de basket te xam naa man bi may koy jël xam naa conditions yi ma ko jëlee te aujourd'hui j'essaie des conditions yi nga xam ne Babacar Ndiaye la Babacar Ndiaye aujourd'hui si si si si si Si moi j'avais eu des conditions que Babacar Ndiaye a aujourd'hui, je te jure que le basket aurait fait un bond au moins de de de de de quatre pas en avant. Parce que les moyens sont là. Mais malheureusement, il y a les moyens et curieusement, ça régresse. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et président Macky Sall am na lu mu ci doon. Mais président Macky non doon c'est-à-dire quest bi bu régressé parce que bu fekkente ne ni jàpp nga ni mbir yi ni mu war a doxee doxeewul noonu Babacar Ndiaye. Euh, non dañ ko fa teg. non non non non Macky Sall mënul Babacar Ndiaye dara. lu tax Babacar Ndiaye est élu. Et les textes de la FIBA sont sont très très très clairs c'est-à-dire que l'État ne doit pas s'immiscer dans l'affaire xam nga man c'est-à-dire que à l'époque quand mais j'ai été sanctionné vous rappelez mm-hmm. quand euh, on, nous a euh, nous a démis de de de de de de la fédération de basket et que l'État du Sénégal a pris millions de de tout le monde a cru que c'est à cause de la fraude que on a pris 300 millions d'amende or que c'est mm-hmm. pas vrai c'est la FIBA qui a sanctionné le Sénégal tout simplement parce que le ministre de des de l'époque Mbagnick Ndiaye s'est immiscé dans les affaires de la fédération pour démettre le président de la fédération qui a été élu par, par donc c'est à cause de ça que la FIBA a sanctionné le Sénégal d'accord donc si aujourd'hui Macky Sall fait ça eh bien il aura exactement les mêmes sanctions c'est-à-dire Babacar Ndiaye là où il est il est hyper ça moi je le te ku ko xamul aussi moo wax ko kenn ñi nga xam ne ñoo ko fal. mais bu ñu la falee benn yoon ñaari yoon mais yaa xaytu mu la nga liggéey mais il travaille pas et, et, et le problème c'est que ce que moi je dis il ne prend pas des gens comme ay pâté euh, des gens comme euh, bon je sais pas je peux. parler pour les pâté te pâté bëgg chez eux. ah pâté ko mën a jël ndax pâté. <laughs> Pathé bëgg ko remplacer mu koy ah bon mais mais c'est c'est c'est normal Pathé Pathé parce que xamul sax parce que Babacar Ndiaye dépend basketteur. Hmm. Babacar Ndiaye dara la xamul si Bakel. d'accord on termine rapidement. Okay.